asalaamaaleykum sunu mbokku téléspectateurs yi ñu ngi leen di dalal ci émission bi diwaan yi ak gox-goxaan yi sunu émission tey bi nag dañ ciy ànd ak waa SCA stratégie de croissance accélérée ci programme bu bees bi ñu tëral tudde ko programme de développement des clusters locaux dem nañu waxtaan ak monsieur Ibrahima Wade secretaire permanent bu stratégie de croissance accélérée avant ñu yegg Pout ci acteurs yi di tourner autour de la filière fruits et légumes bi ñu jegee Pout dem nañ gisee ak association des producteurs de mangue yuy Diofior balaa ñuy yegg ci Delta Saloum patrimoine mondial de l'UNESCO lan mooy stratégie de croissance accélérée mission ak objectif ci loolu dem nañ waxtaan ak monsieur Ibrahima Wade secrétaire permanent bu SCA. loi d'orientation numéro 2008 03 bu juróom ñetti fan ci weeru janvier atum 2008 moo yoonal stratégie de croissance accélérée ak décret ya ko wéyal stratégie de croissance accélérée sa njëlbeen ga wàññi ndóol gi wala sax jële ko fi lañu ko tënkoon waaye li ko tax jóg dëgg-dëgg mooy fexe ba koom-koom gi am ak yokkute ci lu gaaw nguurug Sénégal ci wàllu stratégie de croissance accélérée juróomi grapp la samp muy boole ay bànqaas ngir suqaliku gi am muy agriculture ak agro-industrie produit de mer ak aquaculture di lépp luy bàyyeekoo ci géej gi tourisme ak artisanat ak industrie culturelle wàllu textile ak habillement ba ka juróomeel di xarala yu yees yi di technologie de l'information et de la communication ak téléservice. pour la première fois ci Sénégal ñu taxawal fi li nga xam moom la ñuy bu di regroupé ñëpp ñi bokkoon ci yeneen kuréel ñi nga xam tam nekkuñu woon fenn ba tey jii képp koo xam ne yaa ngi yëngatu ci wàllu mbayum dër bi boo dugg si Sénégal am nga cadre boo xam ne moo lay accueillir parce que lépp lu ñu gis tam ci wàllu développement organisation ak structuration daf ci bokk loolu moo doon jéego bu njëkk bi waaye ci biir jéego boobu tam euh, ñu fixé leen ñu fixé ndoo ak ñoom ay objectif ci objectif yi moo doon ba nga xam ñu ngi toll ci vingt cinq mille tonnes ñu kanamu premier ministre ni ko bu ngeen bu nguur gi defee lii ak lii ak lii danañu jël engagement yokk exportation horticole yi production bi mais surtout exportation horticole yi à cinquante mille tonnes en deux mille douze soixante quinze mille tonnes en deux mille quinze. naa citer tam performance yi nga xam ni ci lëkkaloo bi ñu lëkkaloo ak agence nationale de l' aquaculture ñu ngi ko commencé def ci wàllu aquaculture tey jii booy xool les ferme privées yi ñu ngi yokk ci réew mi euh, production aquacole bi naam yeggagul fa nga xam ni fa lañ ko euh, séentu woon. waaye pour réew moo xam ni ay juróomi at ci gannaaw wax fi waxu aquaculture mën naa ne dañu naan ay gént la woon tey jii doon na loo xam ni vraiment réalisation concrète la. ci secteur économique yooyu ñu retenir am na ay pôle yoo xam ne mën nañ leen a euh, génne pôle yooyu ñu tudde leen ay cluster cluster locaux maanaam fexe ba boo demee ci benn gox ñu xool ndax am na ay concentration d' activité économique maanaam ay entreprise ci gannaaw concentration entreprise ñu xool yan filière benn wala ñaar yi nga xam ni ñoo ca gën a xarañ ñu fexe ba def accent bi foofu maanaam puus waa fànn boobu ba nga xam ne ni économie bu collectivité boobu localité boobu danañu ni économie la boo xam ni lii rek mën na doon labelam mu doon contribution ci développement économique loolu mooy démarche de développement de clusters locaux. ngir stratégie de croissance accélérée àgg fa mu jëm am ndam ñépp ci war a tàbbal seen loxo te muy lu sax muy acteur économique et sociaux yi service yu nguur gi diwaan yeeg gox yeeg goxaan yi daanaka képp ku yeewoo ci réew mi loolu dina tax ñu taxawal la ñuy duppee substrat culturel bu ko defee réewum Sénégal mën a jongante ci wàllu koom ak ndam ak yokkute daal di am. approche bi. ak programme cluster bi nga xam ne moom moo ci aju moom mooy la la dimension territoriale de la STA. cest dire que mi ngi naanaam ñu ngi nii actuellement Pout mais Pout boo génnee ñi yëngatu ci euh, activité mbay ak njaayum fruits et légumes kenn def deftul desiti Pout xam nga kooku secteur boobu boo ko laalee suqali laal nga pratiquement waa Pout yëpp plus de cent dix pour cent de la population donc ci critère boobu mooy critère majeur bi euh, secteur bu nga xam ni boo ko laalee rek da ngay laal population wu boobu yëpp. léegi nag ñu dem Pout seeti acteurs yi di yëngatu ci programme de développement des clusters locaux yi ndax Pout dafay jouer rôle bu am solo ci filière fruits et légumes au Sénégal secrétariat permanent bu comité d'orientation et de suivi de la stratégie de croissance accélérée tàmbali na ak doxalin ci xeetu grappe de croissance yi ñu tuddoon doo rek ci base bi jaarale ko ci programme de développement gu yees di cluster locaux di fexe ba suqali filière yi nekk ci diwaan yeeg gox yeeg goxaan yi tëralin googu ci ndimbalu ONUDI la ñu ko defee méngale ko ak li am ci réew yu bare ci loolu secteur bi di micro petite et moyenne entreprise soloom ci wàllu tëralin foo natt weesu na micro petite et moyenne entreprise taxawaay bu am solo la am ci yokkute koom-koomu àdduna bi te it cër bu mag la am ci koom-koomu Afrique loolu di firndeel intérêt bu mag bi ko décideur politique yi ak partenaire au développement yi jox looloo tax ONUDIM jagleel ko programme boppam ñu koy woowee network and cluster ñu jëmmal ko ci ñaar fukki réew ci àdduna bi juróom benn yi nekk fii ci Afrique programme boobu fa muy sukkandiku di lañuy wax animation économique jubluwaay gi fexe ba suqali koom-koomu diwaan yeeg gox yeeg goxaan yi muy nekk lu sax ba faw jaarale ko ci secteur privé bi loolu moo di gën a fësal lii di cluster wala système productif locaux ak réseau d'affaires ci yaatal mooy wéyal stratégie de croissance accélérée ci forme bu opérationnel muy jëmmal ci terrain bi ay objectif de croissance économique ak xeex ndool gi ci loolu projet bi juróom-ñeenti cluster Sénégal la bëgg fësal jaare ko ci tëralin gu leer te sax ñu mën koo toxal tamit te it mën koo yóbbu ci réew mi yépp ngir mën a am ci lu gaaw lu ñu wane projet bi bi ñuy tàmbali dafa jublu woon ci ay clusters yu am ba noppi te stratégie de croissance accélérée jotoon ko ràññee te la sa mën a tukkee ci ay njëriñ benn enquête bu ñu jotoon a amal firndoloon na ko ci loolu diwaan bii di Pout la ñu jotoon na door liggéey bi ndax wàllu fruits et légumes am na fa solo lool. dafa am benn programme boo xam ni dañu war a jàppale ci mbirum exportation bi moo tax euh, dañu am benn euh, volet boo xam ni dañuy sensibiliser nit yi pour jéem a améliorer seen liggéey pour mun a ñu mun a dem ci mbirum euh, exportation bi. ñu leen di jàppale tamit ak ay dispositif accompagnement technique am na fa ak service d'animation économique sa mairie ba njàng mi ak gëstu mi tamit ñu dugal leen ci ak université bu cees ISRA ITEA ak lycée technique bu cees le PADELU bi mu ñëwee dafa ñëw am ak ñetti volet volet bu njëkk bi c'était su les infrastructures beneen bi c'était sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication bi ci des nag c'était un volet purement économique qu'on appelait le MAU mooy micro activité économique urbain te ci ndimbalu PAPES ONUDU ñu installé ko au niveau de la commune de Pout commencé di ci liggéey mais mu muy muy liggéey moom ak benn façon façon bi mooy lan moo doon dañuy xool ay entrepreneur wala ñu ngi ko tuddee ñun dans le jargon de notre animation économique les GIA les groupements d'affaires ci groupement d'affaires yooyu nag da leen di première phase bi mooy da leen di identifier xool leen ñan ñooy nekk yor ay groupement d'affaires ñan ñooy entrepreneur ci biir localité bi ñu identifier leen bu leen identifier ba pare ñu formaliser leen moo ñu wutal leen ay kayit def leen ay sous forme de GIE bu ñu paree ci euh, formalisation boobu ñu commencé ak ñoom nag commencé leen a di xool yi amoon lan mooy seen jafe-jafe yi amul nan la ñuy fexe ba doon am ay jafe-jafe donc bu ñu paree ci diagnostic bi tamit ñu commencé léegi commencé phase de formation. parce que nit ki mënoo di ko dugal ci activité économique te du am formation. ñu leen di taxawu tamit ci wàllu koppar ak société de cautionnement mutuel SCM ak fonds de garanti ba nekk ca CNCA. fonds de garanti bi nag bu ñu ko créer dafa ñu doon dimbali pour que euh, bu ñuy financer yenn risques yi nga xam ne dinañ koy jël ci ay opérateurs yoo xam ne xëy na seen jëflanteeg banque bi da doon doog a door. te xamaguñu woon aussi seeni i activité naka lay tëddee bu ñu demee ba am ci ñoo xam ni peut-être ndog da na a dal ci remboursement bi fonds de garantie boobu man ko jël en charge pour que ñu mën di continuer di financer eh, opération yi nga xam ni moom la ñu seqoon ak programme bi. secteur yi ñu doon financer bari na parce que boo xoolee lu jëm ci wàll lu nekk ci wàllu puut financé nañ fa loo xam ni ci wàllu mbay mi la jëm maanaam ñoo xam ni maraîchage la ñu doon def. financé nañ fa ñoo xam ni ay menuisier métallique la yoo xam ni dañoo dajaloo woon seeni atelier ak seeni doole pour man di jëndandoo matériel ak yenn programme yu mag yi nga xam ne bu ñu leen ko confier comme ni ñu ko daan confier entreprise yi nga xam ne nekkuñu woon ci diwaanu Pout ñoom bu ñu booloo bu ñu leen ko confier ñu mën a dem def ko dugal ko ci seen kees financé nañ fa aussi ñoo xam ni bijouterie lañ doon def comme financé nañ fa aussi ñoo xam ni ay jigéen la dañuy def transformation des fruits et am na projet boo xam ni aussi financé nañ ko fa boo xam ni ñu ngi doon def pépinière donc maanaam lépp loo xam ni dafay jëm ci yokk koom-koomu gox bi. amit partenaire yu bare te wuute ñu mën saa lim stratégie de croissance accélérée union européenne projet de croissance économique bu USAID GIZ ONUDI direction PME ministère de la recherche scientifique ak mairie bu Pout. ñëpp xam na ni bu ne Pout fruit ngay jëkk a wax ñii fi toog ñëpp. si yooyu si domaine boobu la ñuy yëngatu mais dañ see am ay rëq-rëq yu bare bare bare bare si suuf si si attaque yi nga xam ne ñi ngi attaqué màng yi et ñoom nag ñu bëgg a ñëw organiser filière bi organiser ko ba nga xam ne attaques yooyu dana wàññeeku ba mango ji production bi yokk du mango rek ak yeneen fruits yi ak yeneen légumes yi production bi yokk waaye ñu fex ko ba aar ko ba dara ko attaque ba ñu koy mugg exporté te xam nga bu ñu demoon bay exporté dafay gën koŋ bi day gën a am solo si gox bi parce que ñëpp xam na ni bay fii bay ay baykat rek a fi dëkk te ñu jàmbaare lañu te suuf si aussi yàlla def na ni suuf su baax la suuf su fertile la. waa stratégie de croissance accélérée jokkoon nañu ak waa Diofior ngir jàppale leen ci mbirum élevage mais aussi ci mbirum production ak njaayu màng bi. ñu seetaan association des producteurs de Diofior ngir filière manga am organisation bu baax secrétariat permanent bu stratégie de croissance accélérée amaloon na ak tukki nemmeeku ci gox bii di Diofior nekk ci diwaanu Fatick lu jege juróom benn junniy nit ak ñetti téeméer ñooy yëngu ci filière manga bi nga xam ne ñaari milliards ci francais CFA ñoo cay tukkee. solo bi mango am ak njariñ la cay nit ñi di jëlee tax na at yi wees ñu amal ci liggéey gu am solo ngir lañu cay wittee gën a bare looloo tax ay jéego yu mag lañu ci def rawatina ba fexe méngale toolu mango yi ak jamono ndax téeméer boo jël ci mbayum fri juróom benn fukk yi ak ñett ci verge de mango yi lay bàyyeekoo jéego yooyu ñu def tax na njëriñ li gën a yokku ndax hectare boo jël am nañ ci fukki ton ci toolu mango yi fi woon ñaar fukki ton ci toolu mango yi méngale ak jamono te it production nationale bi gën a